fédération bi lëkkalee daayira Serigne Touba yi nekk ci biir réew baax Santine bi mu sosoo ak tey mat na at ñu sosoon ko nag ci ndigalal Serigne Cheikh di Makhtar bu Cheikh Abdoul Aziz Bara nekk kilifa fii ci biir réew baax Santine boobaak tey nag nu ràññee ci ak dox gu mat sëkk masala ginnaaw bi nga xamee ni rek naal nañu ay liggéey yu am solo taxawal ay bis yu am solo mu fees ca lool di surne xasida bi nga xamee ni defal nañ ko ci biir réew bu ba mu doon bégum bépp murit ñu jóge ci nag daal di sumb ay liggéey yu am solo waaye it sumb ay bis yu am solo mu fees ca ci ziar bi nga xam ni moom lañuy ñuy ziare ji woon sang bu tedd ba Cheikh Sidil Maxtaar yàlla yàlla yokk ay leeram ca tasnu ci barkeem mu toll ci li mu yu bari onze millions daal ci jóge nag daal di jëndal sëriñ Touba. fii ci biir réew bu Argentine kër daal di cay def nag limu xaaj bu takku mu toll ca soixante mille dollars yu daal di nag dëgmal màggalu Sëriñ Bàmba gi sumb ay karawaan nemmeeku ji gox yi nemmeeku ji taalibe yi fésal ci seen kanam programme bi ak jubluwaayu fédération bi ba mbokki murit yi wuy si ci lu ñi mel ñu àgg nag ci bisu màggal Tuubaa gi mu doon bis boo xamee ni it ñëpp ràññee nañu seere it daal di wax ni lu ni mel mosu fi am fédération bi daal kon yeex na taxaw mu nekk lu am solo magal googi nag ci fàttali ñu dépassé ci daanaka lu toll ci neuf cent mille daal di nag fas daal di wàcc daggiwaat seen i alerte ak laxasaay jublu nag li nga xam ne mooy liggéeyu kër Serigne Touba gi tax daal ñu jàpp ab assemblée générale boo xam ni it na mën a dajale booleem taalibey Serigne Touba yi nekk ci biir réew mi daal di nag sas benn murit bu nekk lu toll ci 2000 peso nga ñu daal di fas yéene nag comme sumb li nga xam ne rek moom moo di liggéey bi ñaan yàlla àggale kër gi ci jàmm ñu naal yeneen naal àggalewaat ko ci jàmm ci barkeeb Seexul Xadim ci Ahmadou Bamba Xadimu Rasul